yee gars yi salaamaaleykum di leen siyaaraan di leen bëggee di leen wax ngeen continuer di abonné di partager di like si abonné si seen YouTube Diaw américain borom américain business dañu ñëw nag ci njàngat bi nga xamante ne gis nañ ko ci troisième mandat bi ñu ngi koy ruumandaat ne Macky Sall dafa bëgg a def troisième mandat te moom ci boppam sax gis nañ muy wax ne limité mandat dañ ko fee war a jëlee et cetera et cetera mais ñun benn conseil lañ am pour yow Macky mooy que yow troisième mandat gënul ci yow gënul ci réew mi gënul ci population bi léegi nag. lii nga xamante ne ñun war nañ la ko conseil muy en tant que citoyen mooy que Matar Ba préparel Matar Ba nga teg ko mu nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar prochaine élection présidentielle mu nekk seen candidat parce que Matar Ba au moins que yow say ministre Matar Ba moom moo ci tane ministre yi nga am yëpp mataar bi moo ci tane parce que lu mu bon bon monde sport bi bëgg nañ ko te actuellement mi ngi def li nga xamante ne moom moo di trophée tour sénégalais yi bëgg na ñu ñu ñu ngi koy gis ñu ngi koy xam peut-être ñu ngi koy xam ndànk-ndànk te trophée tour bi muy def 14 régions 14 régions yëpp mun nañ ko ci xam léegi nag soo ko préparé teg ko mu nekk seen candidat jàpp naa ne yow loolu mooy tane ci yow te loolu moo gën ci yow bu fekkente ne nag gagné na muy sa bu fekke gañewul na ngeen lem seeni debeus abal ki gagné mu gouverner Sénégal nek ci jamm Sénégal lool lañ xam ñun jamm ak salam lañ xam bu fekkente ne sax amuñu xaalis ñun ñu nekk ci jamm buñu amul yeen kom yu nekk ci jamm buñu kenn ak ray ak stress diñu ray ak ay lacrimogène dekk bi nit ñi di dé lool du fi am te troisième mandat mom bul ko xalaat bul ko jema jëkëti kaw ya ngoy ru mandat ci suuf mais bul ko yëkëti ci kaw préparel ki nga xamantene modi matar ba nga tek ko mu dem élection lu mu am jël te nga bàyyi képp ku bëgg a bokk ci élection yi bokk waaye yow moom sa candidat moom ki ñu lay proposé mooy que nga jéem a préparé Matar Ba moo ci tane ci nga yor moo ci tane te moom la Sénégalais gën a bëgg parce que lu mu bon bon bon mon monde sport bi xam nañ ko te bëgg nañ ko kon jéem koo préparé nga teg ko organiser élection yi jaar yoon nag neutre loolu lañ lay conseil te loolu mooy li gën ci yow te jàpp naa ne moo gën ci ñi nga àndal essayé loolu monsieur président essayé loolu moo gën ci yow te nga tontu sama message Instagram yi.